Lirou maa ngi lay ziar. maa ngi lay delloo ziar. maa jàmm. sant yàlla bu baax. tey sunu papa Gaston génn àdduna. nga bàyyi sa yitte yëpp nga ñëw fii. waaw c'est normal. looloo ma war ndax sunu papa moo dem. mu nekk euh, monument ci Sénégal. liggéey lu rëy ci Sénégal. tey fii kilifa diine kilifa aada ñëpp a ngi fi. tarixe boo gis ñoo ngi fi. autorités yi ñëpp ñoo ngi fi. ci moom moo ko liggéey biir Sénégal. tey ji ay nit a ngi fi tey ay xale ngi fi yor ay kër yor ay oto rafet ci ginnaaw yàlla yoon ci loxoom la ko yàlla jaarale waaw di ko ñaanal yàlla ko xaare ko àjjana di ko jaale njabootam di ko jaale makan wax dëgg yàlla di ko jaale makan di ko ñaanal yàlla na ko yàlla may xolu muñ di ko jaale waa Gaston production gépp vraiment di ko jaale njabootam di ko jaale sama rakk ji Balla Gaye 2 ñoo ngi koy jaale bu baax a baax ndax papaam la woon di jaale Abdou Aziz Ndiaye ak ñoom Baye ak jaw mi toogoon fii ñu koy ko jaale ñoom ñëpp ndax daal wax dëgg yàlla ah monument dem na de kilifa dem na di ko jaale ñëpp ñëpp ku ne mën na ko jaale sa bopp question ku ne mën na ko jaale sa bopp loolu moo ko liggéey biir Sénégal ndax suñu papa la woon suñu xarit la man ma wax dëgg yàlla fu ma ko mës a gis dama koy damay jàpp ci loxo bi jox ma mu yëkkati jox ma wax dëgg yàlla nekk ku baax nekk bañkat bëggul ko ko yëpp côté boobu dama ko fa xaw jël ndax léeg ma am duma doxé wala am duma waxé ñu ne dafa tang dédé tangul dé da nga loolu lépp da bañ ko la yab la bañ ko la yab bañ nek bañ kat loolu dong la man fuma neex jaar awuma fenn sens interdit déedéet dét loolu yalla moko def lan moko waral duma jaay suma ngor du ma jaay suma ngor man te loolu dafa bari ci réew mi légui loolu dafa bari ci réew mi liiru lu ma jaaxal ñun waa làmb bu bànneex amee ñooy daje bu naqar amee ñooy daje ita jar kàddu yi ñaaw ñi koy waxante kon nan ko rafetal te loolu wax bu rafet nan ko rafetal di wax lu rafet di def lu rafet xam ne sport la su jeexee jeex na tey bis bii du jaas de ñëpp ciy jaar kon nan ko rafetal tey wax lu rafet di def lu rafet xoola fii tey ni mu mel sunu papa daal yàlla na ko yàlla xaar àjjana yàlla na ko yàlla xaar ñoo leen koy jaale ñëpp ku na ko jaale sa bopp ku ne mën na ko jaale sa comme li nga wax ne léegi mooy mbir bu am solo parce que làmb tey ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay parce que boo xoolee ñun ñëpp samedi ak dimanche yëpp ñooy bokk benn di tase waaw tout le temps ay nit di ñu xas naa nitu lamb dañoo foo nit lamb bëggante waaw dañoo wax dañoo wax leen neex rek mm-hmm. am nañu bëggante waaye lépp dañuy liggéey su jeexee rek jeex na waaye ñëpp bëggante waaye su jeexee jeex na voilà loolu la ko defee nanu ko jaale ñun ñëpp rek baa def baax ñu ngi sant Serigne Touba baax tey suñu Papa Gaston génn ngeen bàyyi seen liggéey témoignage boo ñu mën a di wax na julli ko mais ñoom ñaar ñëpp ñu bokk ñoom ku fonk diine la ñaar di dal ku fonk doomu aadama la mais ku bëgg doomu aadama la mais ku sopp doomu aadama la seen balu baal responsable la ku bëgg njaboot lay mais seen balu bi la yàlla mi nga xam ne yalla ñu xamal yalla wacc ci kawam mais lolo tax do ñu ñu diko ñaanal ñu ñi taxaw fe mu jëm ne ñu ko fi mu joge ak xadim ndax yàlla lépp yomb na ko kon yàlla na ko yàlla tax ko suturaal ko ci dara ji barke bàyyi ko fi njaboot ba li nga xamante ni bàyyi dara bañ cee yàqu ci barke Seydina Muhammad ñun waa làmb bu amee ñooy daje naqar bu amee ñooy daje tey est na tey waxante loo xamante jaru ko fi ñoo bokk. waa sport moo war ndax tey gars yi ñoo bokk. luñ mën di waxante itam jeex na comme ni ngeen koy faral. dama jàpp na rek. tolluwaay la rek. tolluwaay la rek waaye ndax lu muy gën di rafet rek. mooy gën ndax yu mel nii dafa mat a sóoraale ndaje yu mel nii mm-hmm. parce que nit ku ne war ngaa jomba wax nit loo xamante ni ëllëg mun nga jàkkaarloog moom di sëgg wala ngay rus wala dara mm-hmm. wala say nawle di ko gis mm-hmm. kon nañuy gën a rafetal rek loolu rek moo ci solo jërëjëf jërëjëf sa jërëjëf <laughs> ah maa lay bu jaam sant sëñ Tuubaa baax tey suñu père Gaston waaw génn àdduna ngeen bàyyi seen yitte yëpp ngeen ñëw Alioune Seye sa diggante ak père Gaston waaw loolu sant yàlla di wax inna lillahi wa inna ilayhi rek di ko ñaanal suñu borom yi nga xam ne moo am yërmandeeg jéggal defal ko yërmandeeg jéggal waaw bépp mbër boo fi gis wala bépp sportif boo fi gis rek wala bépp julli boo fi gis rek doo ko laaj lu tax muy ñëw fii ndax Père Gaston ci ñun la bokk ji nañu loolu wax dëgg yàlla su liy xewee ci dalee ci kawam war nañu mën ñëw fii bokk ak famille bi naqar bi di leen ñaan ñaare yàlla may la xolu muñ ci barke Seydina Muhammad boo ñu bëggoon wax tey sa diggante ak wa sama digënté par Père Gaston comme relation bi mu seqal ak lu yëpp rek. Mhm. Mhm. waaw yàgg na maa tëggal làmb boo xoolee tëggal na ma ay set combat mhm. té yëpp yalla dogal na ma ci am ndam. kon jigéenuwu ma. kon maa ngi koy ñaanal ci loolu bégte woo bu may defal. ak teranga wu ma defal yalla nako ko yàlla fay ci barke seen naa xam te xam naa ni ma koy ñaanal non la ko mbir yëpp di ñaanal. mais ali bi ko togué dégg tis dégg dégg dégg xibaar. non xibaar bu tiis bu naqari la wax dëgg yàlla. man daal makan laay laay ñeemantal di nga wax ne ñorom bi ko Papa bàyyal yàlla na oyof tolu ci barke sayyidina mohammed ndax metti na ñak wajur metti na torop ne yàlla na ko yàlla may xolum muñ ak njabot gi yep rek ñu leen kay bok di ko di bok yeen nakar bi ñu gis ni wa lamb bu ñu amee naqar dañ kay bok. bu ñu amee bànneex dañ kay bok tay loy dénk wa lamb tay pour ñu mooy yoon ni ñi def ni rek mooy yoon bu ñu ay ay nit mom bu ñuy ànd bokk loo xam ne ko seddo dañuy fay mu rafet mhm. te li yep ci rafetal la kon yalla na yalla def jamm ci akhlu lamb yep def ko ci senegal ci barke sayyidina mohammed Serigne Ndiaye mang lay ziar ñu def bok tey suñu papa Gaston génn àdduna ngeen bàyyi seen yitte ngeen ñëpp ngeen ñëw sa diggante ak père Gaston. waaw ah, mais loolu obligatoire la parce que père Gaston tey ñu suñuy yëngu tey gën a yàlla yonent bi ñu si taxaw sur le plan yaa nga defar yàlla bu demee te léegi at la ñoo ànd sa normal ngi ñëw ñaana ko yàlla xare ko àjjana xam nga di yan bi oyof loolu daal vraiment di ko ñaan yàlla xare ko àjjana parce que na xale nga amul la gëna marqué ci Père Gaston avant nga duggu lamb ak ba nga duggé lamb wa déggoo mo xam ñu ay xel dañoo fekk muy muy defar ay ay doomu aadama maanaam nit ku jël yoon bon mu jël la fay la xaj wax la nga yor sa njabot yor sa fami am sa kër sa terang ko lu bax lay def to lu bax la bu ko nit def defar ay fami fami fami fami ko ko tay bu dëddoon da la wut ñaanal ko xara xaral jëna vraiment ñun nak yalla dawal na mosuñu ñu tegg ta dañ na ay choono yu metti pour ñu réussir suñu carrière donc tey bu doone da ngay ñaan yalla xara xaral jëna rek vraiment suma jumul da melni mus nga beurelo gaston production ben combat sama combat ko monsieur junior combat ko monsieur junior wa moy digënté forza ak kibi tay tay tay tay mom père gaston mo la wo directement wala makan mo la wo non père père gaston mo makan makan moy gaston té la dañum suwa pé tafagé li ñu joxol té man tamit ku joxo ba tafagé bu suñu bir mo ma ngay japp mo avancer rek donc du coup tay lu mëna xew rek doom papa la ben la tamam ma pé tafagé tam ben la même mu teggul won sax tay yoon la axul lamb yep daje fi parce que moom mooy lamb moom mooy defar lamb mooy li ma nga defar ay doomu aadama daal loolu la ñu nga da nga nek si biir lamb di suivre tey bu amoon loy dénk wa lamb da tey su naqar amee dañuy daje su bànneex amee dañuy daje yan kàddu lay doon ah ñu maa ngi ko bokk ndey bokk baay rek ñëpp rek xam ne tey vraiment tey lamb moo ñu boole rek bu doon lamb xëy mën nga bañ ah, lamb bu ñu rafet rek vraiment di ñaan yàlla promoteur fi nekk yàlla dafa leen jàmm ak salaam may leen wér ak gudd fan ba yëgal seen sago si jàmm salam dah. ñaanal tam suñu frère Makan yàlla dafa ko jàmm vraiment mu yëgale sagom yàlla bàyyi ba mu sut ba mu sut pérgaston ay fan daal wax si naa waxoon. jaale pérgaston. leen koy jaale xam nga pérgaston moom kenn ku ne mën na ko jaale moromam. dëgg la ndax li ma maasal sax père lañ ko nga. kon xam nga ni kon xam nga ni kenn ku ne mën na ko jaale moromam. donc ñu leen koy jaaree di ko jaale presse presse bi yëpp ak liggéeyam fi mu jàpp nañ ci kon yéen ñu leen koy jaale bu baax a baax a

yalla tek jabar gi loxo ñun ñi fi dess nak ci aduna yalla suñu borom yexé ñu ba mu bëgg yi am yalla suñu borom ñu soppi ko daga ma ngi leen nuyu baax di la xaar wa ñu lay xaar ñu nuyu képp ko xamanteni yaa ngi teew fi tay mom naqar tis mo ñu fi teewal d'abord ñu ñaanal suñu papa personne bi nga xamne mo laq yalla ko suñu borom yërëm te xaaral ci aljana firdaus na nit ku baax la nit ko xamanteni ku am lu muy bañ la ku baax mëna dimbali mbeur mais ak la lamb dem boo ñëwee ci armée la xam ne ñëpp ñëwaloon ñu nit ñi am combat ñi combat yëpp bàyyi seen yëpp ñëw man su ma xamee ci lamb ginnaaw yàlla moom moo man nag day sama mbokk di sama papa di sama xarit ndax moom njëkk tëggal combat gala fay ay million kon loolu bu wax dëgg yàlla dañ koy ñaanal suñu borom ko ci àjjana fi daw di ma sonal gi di ci jiital makan mbeng mi nga xam ne mooy seen mooy taaw di ko ñaanal yal na yan bi oof ci kawam yàlla musal ko ci ndog musal ko ci cap mu yàgg fi di ñaanal waajuram bu góor bi di alaaji ga soon mbeng ñu koy ñaa jaale njaboot gi yëpp ñu ko jaale famille bi yëpp parce que dëgg yàlla ga soon loo mën a wax ci moom xam ne nit ku baax la woon nit ku amoon ñu bañ kon fu nekk koo xam ne lu wax nit lu ko neex rek lépp lu mu wax nit rek dëgg la dañ koy ñaanal rek yàlla ko ajana nekk dëkkuwaayam ñaanal bàmmeelam xaare ko ci àjjana firdaws ak mboolem julit ak képp ku ko fekk ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw tey yan message ngay lancé ñun ñi nga xamante ne tey ñoo ngànk lamb bokk lamb parce que mën ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi chaque dimanche chaque samedi ñooy bokk lamb ji temps yi ñu war a passé suñu kër yi parce que si lamb yi ëpp ñu koy passante suñu biir man nag yan message ngay lancé comme xew yëpp ngay suñu daf dal ànd yi daf dal waxin waaw loolu moom même bu dul làmb àdduna moo toll boo xam ne nit ñi dañoo war a rafetal yéenante jàmm ndax yow am li nga war a am mënu ma la koo xañ dëgg la man li ma war a am mënu ma koo xañ yàlla moom li muy dogal dogal na ko nopp ñun nag dañoo nekk ay jullit waaw dañoo desee wóolu suñu borom parce lépp loo fa war a jaar ci àdduna suñu borom bind na ko avant ngay judd bala ngaa dee duñ ci jot kon am na ci loo xam ne jërul yàkkam bi jërul daw koy daan jërul ñaawoo na ñëpp rafetal rek te xam ne li nekk suñu kanam mooy dee te ala kulli dañ ci jàpp ak ku mën a nag ku juddu rek di ci jaar kon nak dañu ñaanal yalla yeex te fekk ci lu baax fekk ci siraatal mustaqim ak mbolam julli ci barke nabi sallallahu alayhi wasallam nan rafetal rek te xam am na mu solo parce que boo xoolee tey li am fii suba mooy amaat feneen rek kër kër gépp la malaakal moom di fëgg ak ku mën doon léegi nag koy ñaan suñu borom ca fi di jaale encore ak ay soxnaam suñu borom may yàgg fi di ko ñaanal ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf